nga folaa la fa laa doon leen bëgg wax ne on ne peut pas aujourd'hui ñun mënuñ taxaw fii nii tim situation bu grave bi nga xamante ñu ngi teg Sénégal fu gara àdduna bi amul pays yi gën a reculé dañu une Sénégal c'est sûr fii nii boo xoolee France 24 buñ doxee Gaza wax Ukraine Sénégal lañ ciy teg Sénégal lañ ciy teg RFI même chose. gis naa sax ay yenn gis naa ay yenn constitution africain dañu débat bi ñu posé mu ne est-ce que Sénégal sax est-ce ah, démocratique. di ko a dañoo ah. ce pas ah, maanaam de façade bi yëpp gars donc mais au moins que amoon nañ li nga xam ne comme par exemple li procès Demba Sy doon wax une démocratie sans alternance. Mm-hmm. avant 2000. oui xam dem nañ bu alternance commencé huilé wu. Mm-hmm. mais tey. Macky Sall fi mu ñu dellu fi mu ñu delloo dafa romb 67. d'ailleurs sax ñoom fa la def référence gis nga projet Ismaïla Madior nee na mos nañu reporter élection dañuy def ay ay jamono parti unique. benn benn candidat. ko reconnaître. Mm. bi ñu ko laajee mooy non mos nañu reporter élection au Sénégal. c'était pas un report c'était pas c'est pas c'est pas un report. Mm. c'est loi constitutionnelle bi ñu adopté woon jamono yooyu. de juin 67 ne parlait pas de report foofu yeneen enjeu ñoo fa ko mu am conséquence aménagement calendrier parce que ñoo bëggoon defandoo élection président élection législative ñu instituer la destitution de l'Assemblée nationale et la destitution du président de la République la dissolution de la et la destitution du président xam nga loolu amul amul. tey nii Sénégal nii Macky Sall li mu président Macky li mu posé nii sa mun nañ ko qualifier de haute trahison ça une destitution mais fan ngay jaar haute trahison kenn définir ko. amuñ benn mécanisme nga xam ne tey te li gënoon yomb tey ñu amoon dans nos dispositifs constitutionnels un de destitution. nga xamante même bu nekkee même bu nekkoon day def pétition ñu jaar ci pétition pour destituer ko ñu noppalu. parce que l'acte est suffisamment grave. tey nag mënoo toog nga tiim loolu nit ñi def ay recours devant le conseil constitutionnel di xaar le conseil constitutionnel ñu ñu tey nii nit ñi dem dialogue li tax Abdou Diouf Abdou Diouf un président de la République ne peut pas un ancien président ne peut pas parler ne doit pas parler comme ça. mooy bu démb bi. bu démb bi. parce que ma ma conviction. bu ñoom ñaar ñëpp xam nañ conseil constitutionnel comme li Abdou Diouf ñëwaat di wax. mais boo gisee style bi mu bindee mooy que texte bële defu ko bu nekkee moo def bii deful bële. Mm-hmm. non non parce que dit clairement. que que que lettre publiée avec sa signature. suscite des incompréhensions. bu nekkee moo ko bind kay na na assumé ne maa ko bind. Mm-hmm. il fait de la courtoisie. oui bien sûr nest ah, mais mais dans le texte ça montre carrément que c'est pas lui.